nuyu nañu leen euh, bu baax a baax di leen di jaajëfe ci ànd bi ak kóolute bi ci seen euh, chaîne KCT TV mbokki yi euh, dikkati nañu ndax am na leneen lu bees lu xew ca côté Djibidione Djibidione nekk ca département bu biñona xibaar bi mooy l'armée nationale moo xëy daal di songu benn position bu bees bu ay combattants yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance xam naa ñu bëri ci yéen di ngeen laaj nu mu demee noonu nu mu demee mooy ginnaaw opération bi nga xamante ne l'armée bi amal na ko ca côté euh, Nord Sindian muy euh, base yu Salif Sadio yi nga xamante ne daaneel nañu leen ci weeru mars atum deux mille vingt deux bu ñu noppee ci loolu ñu ñëw daaneel euh, base yu Paul Alukasine Bassène yu nekk ca côté Djibidione am na ay nit yu Salif Sadio yi nga xamante ne jotoon nañu rëcc. loolu du ñàkk am na it ci côté euh, Paul Alukasin Bassène ay nitam ñoom it euh, am na ñu rëccoon boo leen fàttalikoo ci euh, jamono ji nga xamante ne moom la opération doon am amoon na ay braquage yu xewoon ca Badiouré ca département bi ñoo na ba tey ak ca nga xamante ne moo di ku tengoor muy ñaari gox yoo xamante ne seen diggante ak bi Bignona commune bu Bignona soriwut ñu jàpp ne ñooñu ay éléments la yoo xamante ne dañoo rëcc ci opération yu l'armée bi doon amal ca Nord Sindian ak it ca côté Djibidione alors ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo rëcc ci opération yooyu di ay éléments yu Salif ak ay éléments yu poul Alukasine Bassène ñenn ci ñoom ñoo daal di taxawal benn base rebelle bu bees base bi nag

mooy tey lundi yemoo ak euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum deux mille vingt trois song nañu leen depuis fajar bi daanaka askan wi yeewoo ca zone boobee ba ci ñi nga xamante ne ñu ngi ca commune bu Djinaki mooy vallée des palmiers zone des palmiers ñoom ñu bëri si ñoom woo nañu di ñu xamal ne ñu ngi dégg fetel yuy sab ci côté Djibidione askan wi yeewoo ci Djibidione nag jamono ji tiitaange gu rëy gu rëy a rëy la ñu àndal. di ngeen dégg ci biir euh, vidéo bi témoignage bu adjoint au maire bu Djibi Dione deuxième adjoint au maire bu Djibi Dione di Souleymane Badji di ngeen ko dégg mu indi témoignage wax ne ñoom fetel yi moo leen ñoo leen yee ci fajar bi fotel yi ñoo leen yee ci fajar bi waaye jamono ji dañoo tiit dañoo tiit donc mbokk yi ñu déglu témoignage bi ñu dikk. depuis si suba euh, yéen a ngi dégg ay fetel yu sab lool la. waaw waaw waaw waaw depuis si suba man mii sax di may jóg fajar six heures du matin on a entendu des bruits. mu commencé fii fii bu baax a baax a baax a baax a baax a ay fetel yu mag nga yaakaar. non yu mag non mais yii sax daanaka. am na ñu nee ne am na ñuy ne le bu la bruit ratissage bi commencé musul fii amati musul am fi fii hmm. Hmm. ci façon bu bu dem bi bu démb ba tey. ay kanu yu mag la yu mag a mag a mag a mag. kon yen fetel ñoo leen ñoo leen yee. man mi sa ñoo ma yee. bu dul bruit sax. di ko dégg sax di nga ko dégg sax <laughs> y a des fu ma nekk ko bu dul lool. bi nga doon dégg jim jim jim sax. kon ba jamono ji mu ngi sab mu ngi sab ba jamono ji mu ngi sab bu baax a baax a baax a baax. Hmm. yéen da ngeen tiit pour seen sécurité. dañoo tiit de yow xam nga ni baal moom bu mu ne sum dañoo tiit trop. Hmm. parce que xam nga xam nga feteel yi surtout baal yi. surtout léeg-léeg day am yoo xamante ne bu daanee doo xam fu muy daanu. Hmm. avec les éclats bon. tu sais c'est pas facile hein. baal moom doo xam fu muy doo xam fu muy yem. ama amagul ay nit yu jogee ci yeneen villages yi daw si seen côté bi. dégloo dégloo dégloo riir bi. non non bon présentement amagul. parce que ñun fii daanaka ñoom génne por côté Gambie moo leen gën a yomb. Hmm. ñëwee côté hmm. ñoom ñoom fële côté Gambie la moo leen gën a jege quoi. Souleymane Badji moom mooy euh, euh, deuxième adjoint maire bu euh, commune bu Djibidione moom ngeen teewlu sànq. dégg ngeen lu mu wax ni askan wi jamono ji ci tiitaange gu rëy rëy la ñu nekk ndax euh, fetel yu sab kenn xamul obi fan lay daanu te c'est des c'est des tirs à l'arme lourde des tirs à l'arme lourde donc askan wi ñu ngi ci tiitaange gu métti waaye larme bi mu ngi wéyal li nga xamante ne moo di opération yi foofee euh, ca Djibidione di fàttali ni li waral euh, cong bi mooy ay combattants yu MFDC yu bokk ak Salif Sadio ñen ñi euh, bokk ak Paul Alukasin Bassène Paul Alukasin Bassène nak ben élément la bu César Atout Badiat ñom ñoo colo créer ben position ci gox bobé di Kajaluk nek ci euh, commune bu Djibidione ci arrondissement bu Sindian ñom le l'armée bi songu parce que objectif bi moy dootul amati benn base rebelle ca Nord Sindian ak it ca Djibidione loolu looy objectif bu l'armée nationale moo tax bu ñuy xamee ne am nañu samp ñu cong leen jëlee leen fa waaye ñu dakkal li nga xamante ne it mooy di béyum yàmbaa gi ca zone boobee ndax xam ngeen ni yàmbaa gi ay tool yu bëri la armée bi daal di làkk côté boobu ci ay fan ci ginnaaw boo leen bàyyee xel it benn vidéo wax nañu leen nii toll na ci ñetti téeméer ak fukk juróom ci ay hectares yu toolu yàmba yi nga xamante ne l'armée bi yàq na leen lakk na leen donc mbokk yi lii la leen andil euh, faram-fàccee leen ko pour ngeen xamee ko noonu ni larme bi mu ngi wéyal opération yi ca côté jon congati na ay combattant yu MFDC ca Kajaluk foofe la ñu taxawal base rebelle bu bees base boobe nag la l'armée bi cong pour daaneel ko waaye ba jamono ju ñuy wax ak yéen pour mu leer parce que ñun ñun lépp lu ñuy wax dañuy bëgg mu leer ci nopp ñëpp ni amuñu benn bilan amaguñu benn bilan donte sax ñu ngi topp mbir yi pour xam lan moo xew ci diggante boobe waaye ba ni ñuy wax ak yen amuñu benn bilan que di côté militaire que di côté des combattants du MFDC lii la woon ñu leen di jox dig daje ci beneen vidéo lépp lu ñu ci am nag dinañu dellu si tegal leen ko ci table ku nekk am information bi moo tax ngeen war a partager vidéo bi ñëpp mën si jot ndax ñëpp bàyyi xel ci li nga xamante ne moom la ñuy moom la ñu leen di jox ci K7 TV jërë ngeen jëf